maa ngi leen di gërëm bu baax a baax xam nga d'abord dafa am benn félicitation yoo xam ne jox nañ ko ministre bi ndaxte comme li ma koy waxee rek waxoon naa ko madame Sibi dafa am ay euh, secteur yoo xam ne dafa am euh, dafa technique suñ ko joxee jigéen man dama koy rafetlu dama koy rafetlu encouragé ki ko yore ñaanal ko yàlla li ko waral moo di euh, dafa jigéen ñi dañ leen am fuñ leen batale woon euh, social ministère de la femme ministère de la santé ministère de l'action sociale donc ce qui est dafa secteur public bu jigéen nous ben féliciter encourager ko wan ko tam ko relever défi bi relever le jigéen Ce loolu nous njëkk a def ñu interpeller l'ARTP ARTP ci ñaari niveau benn niveau bi nous mu protéger consommateurs sénégalais protéger les contre les, euh, les opérateurs parce que opérateurs yi dëgg la concurrence baa ngi fi mais ku ci nekk yaa ngi abusé te député yi wax nañ ko parce que wax nañu crédit yi nga xam ne ñu ngi koy lekk wax nañ leen seen dalal ton yooyu ñuy joxe di ci demandé xaalis wax nañu yi ñuy promettre nit ñi nga def ci xaliss te doko gis donc escroquerie bobu il faut que mu am une structure de régulation bo xamné mo koy yoré arrêté ko mais au-delà de ça

man lu sais lañ ma yakal nee len ñeneen ñangi mais man du ma parce que constaté lu nako par huissier té opérateur bi euh, tout à l'heure ministre bi dina ma wax euh, ARTP lan la ci wax ak fan lañ koy joyé niveau bi moy ministre bi moy porte parole du gouvernement am euh, porter la parole du gouvernement lolu moy dafa expliquer la politique gouvernementale. gouvernement bi am ay des am ay orientation am ay politique yo xamné dafa pour réunir mi yëpp xam Euh, jox naa ko ay exemple nee naa ko Sénégal dafa ratifier ay convention engagé wu pour effectivement tere lan mooy xarfal jigéen ñi or dëkk yi nga xam ni fa am rajo ya fa dëkk ñoo xam nan la ñuy waxanteeg ña koy def ba ñu bàyyi ko nan moo xam nan lay waxante ak euh, kilifa yi ba ñu bàyyi ko euh, lu mel ni affaire mbiru xale yi ñëpp bokk nu yem. parce que ñu bëri dañuy japp né bu xalé bi day jang alcorane rek dañ koy nak dañ koy nasaxal wala dara or fait des lolu yi di fu pour ñu wax nan lañuy tarbiya xalé nan lañuy yare nan wara fonké gouvernement bi à partir de ce moment ñaar interpellation yoyu lañ te yaakaar nañ ni euh, dinañ ci dinañ ci sàkk pexe parce que lu nit ñi di dund la lu nit ñi gis la euh, loolu moo tax ñu wax ko te ARTP tam wax dëgg rafetlu nañ liggéeyam parce que ñun dañu yore woon commission bi muy commission communication liggéey nañu ak ARTP xam nañ ni mu ngi def travail de régulation il paraît que direction bu bees bi mu ngi def tournée yëgaguñ ko mais ñu ngi koy encouragé.